ci biir nuyoo bi nag di leen fàttali tey la ñetteelu bis ci xéewal yi nga xam ne ak nga yi nga xam ne Ablaye la jël na ko jagleel ko bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy gàmm gi tey la ñetteelu bis bi euh, nag yi nga xam ne moom la ñuy dugal di ko waajal gétt gaa ngi ñëw geneen gétt gi ci dese ngi ñëw mooy yi jëm Njaasaan ñuy fàttali rek ne Ablaye Sylla dëgg dëgg dëgg dëgg ay jéegoom ci senegal yal na ko yàlla mottali ndax cib tàmbaleem ba fii nu taxaw tey kàddoom ke genn la liggéeyal yonent bi ak Serigne Touba liggéeyal senegal ànd ak Sénégal liggéey ci yokkute teg ko fu wér muy lan liggéey di jox njaboot gi liggéey di jox réew mi liggéey di jox njabootuk yonent bi liggéey di jox Serigne tuuba Serigne Touba nag. buñ ca àggee rek man daf may daaneel ndax wax naa leen ba tàyyi ne nit amul lu dul sëriñam ku sagal sëriñam rek mu bëgg la ñun bëgg nan Ablaye bëgg nan Ablaye ñu ngi doon wax sax naan Ablaye eh, yoonu murit a ko soxla waaye dafa am ñeenti kilifa yu ma woo tey ni ma Modou Ndiaye dégg nañ sa kàddu nga ne Ablaye yoonu murit a ko soxla Ablaye yoonu murit dong soxlawu ko Ablaye jullit yëpp ko soxla Ablaye senegal gépp a ko soxla ablaay Fodut Sénégal sax soxla na ko parce que jéegooy Ablaye ay kilifa ma woo di ma ko wax de ne ma jéegooy ablaay jéegooy Ablaye ci senegal su yàgg ko yàlla mayee li mu bëgg ah, wax dëgg yàlla Sénégal dana siggi sànq nii rek maa ngi jóge ci Serigne Abdou Fatah moom Serigne Falilou lim ma wax mooy Modou Ndiaye ma ne ko Mbàkke mu ne ma gis naa yónneen bi gis naa jëfe Ablaye demb ak bërki démb gis naa ko ci ginnaaw baayam waaye Ablaye fii de la ñëwoon ci man ne ne aslamtu nafsi kera ba mu ko defee ak tey tànki kanam rek la am waaye amul tànki ginnaaw Modou Ndiaye neel Ablaye li bëgg ci réew mi day lu bëgg ci réew mi day dana ko am neel ablaay bu fekkee ne yàlla dimbale na ko ba ñëw senegal na waaxu ba agsi ci man Ablaye na waaxu ba ñëw fii ci man ndax Ablaye day euh, neexut ba neexut waaye yal na yàlla mottali yéeneem fii ci Touba nag yi jëm Njaasaan nag mi ngi nii di téeméeri nag léegi nag li wérte woon mooy Njaasaan ak Tiwaawan ak Cees ak Ndar ak Kawlax ak Dakar ak daal wax dëgg yàlla dajal nga senegal ci xéewal yi ci gàmm gi yàlla na ko yàlla mottali ñuy fàttali mbooloo mi di fàttali Sénégal di fàttali jullit yi di fàttali murit yi Ablaay Sylla 2024 yàlla na ko yàlla may li mu bëgg ci barkeb Cheikh Moustapha Falilou man nag dafa bari lu may ñaan ci sëñ bu sa Dieng laa koy ñaane Ablaye Sylla yal na la yàlla lafal cat Ablaye Sylla yal na yàlla yeggale sa yéene ci Sénégal Ablaye Sylla yal na yàlla yeggale sa yéene ci àddina bi Ablaye Sylla yàlla na nga gudd fan moom réew mi nu ànd ak yow di dox ci réew mi ñëpp gis nu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Ablaye yal na la yàlla lafal cat. waaw ah, lii moom vraiment yàgg naa ci dara lool waaye lii bi ma ko dalee gis moom vraiment lii tey tey tey laa ko mos a gis. lim bu ñu toll nii ñu jënd ko ci nag ngir guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii daal laa ko mos gis vraiment ah président Abdoulaye Sylla daal vraiment lii mu def nii moom man daal yàgg naa ci waaye man du ma tricher vraiment maa doo gis moom waaw te nii la ko defee ci màggal gi waaw mu ngi koy defee nii ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu bëgg nag moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy yootu ci présidentielle yàlla na ko ko yàlla defal yàlla na doon cinquième président du Sénégal ah ñun ñii nag fii daral gi moom au niveau de daral ndindi moom ndindi sëñ Fall man moom nag jàpp ne man maa fi jaw kiyam Baye Fallam waaw wér na ma ne moom dinaa ànd ak ñi ma fi war àndal ñu jàppale ko. waaw man ma ci ñu koy jënde ji wala ñu di ko jënd ji Mauritanie wala feneen te moom vraiment yéene ji am yëpp fii la ko def ci suñu daralu ndindi gi li mu fi jënd lépp ci tet plus de 1100 tet nga jënd ko fii jënde ko benn place vraiment kenn ku ne mën cee gis sa bopp vraiment loolu luñ rafetlu la waaw loolu moom vraiment acte bu ñu rafetlu kon nag ki lay defal lii yaakaar nañu bu demee ba doon ah, am na leen loo xam ne boo ko bëggee ci moom da nga ko am kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko ba li mu am ko en plus de ça ñu ngi gërëm it bàyyi si la parce que suñu suñu ab suñu papa la vraiment bi nekk dara gi léegi vraiment lu rafet rek la ñuy digal waaw mënoon na doon mag moo xam day nekk ci ruxam di ñu jaxase xale yi ñuy xuloo ko xeex mais deful loolu ah vraiment ñu jàppale ci côté ne fànn bu ne ñu jàppale kon nag moom it ñu ngi koy gërëm parce que wolof dane bu lëg lekkee alam na ko gërëme cooy waaw kon nag vraiment ñu ngi koy tax rafetlu lool nekkam bi mu nekk ak ñun fii kontaan nañ ci lool man daal na jàpp ne daal moom vraiment man moom maay maay doon fii Baye Fallam numéro un fii ci Darou Ndine waaw ak koñ ba ma dëkk ak feneen fu moom mat sama tànk mën a joti danaa fa dem incha allah. président Abdoulaye Sylla yéene fësal ay ngëneelam ak wërsëg wi ko yàlla suñu borom jagleel fépp foo xam ne nii tàntal nañ fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indi fa ay xéwal ba tax na bi mooy ñetteel bi fan ñuy continuer liggéey bi ku gis lii ci sama gannaaw muy lu toll ci téeméeri nag yoo xam ne ni dañ koo war a yóbbu fële ca Njaasaan ku xam Njaasaan xam ne bërëb la bu sell nga xam ne bërëb jaamu yàlla la ñu am yéeney liggéey fa liggéey bu kawe bii nga xam ne téeméeri nag yi dañ ko bëgg yóbbu Njaasaan ci kàttanu yàlla suñu borom jébbal ko la xalif général ba tax na liggéey bi day continuer di gën a wëy am na téeméeri nag yoo xam ne nii ña nga fële ci angaar ba ñu teg ko fa bëgg ko yóbbu daara jolof ak lingeer ci kàttanu yàlla sunu borom ci wéyal liggéey bi wéyal cant ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi mu am yéene def président Abdoulaye Sylla téeméeri nag yi nga xam ne nii moom la ñuy waajal waajal yóbbu ko daara jolof ña nga fële ak lingeer muy ñu ko ñu war koo jébbal suñ mbokki xaadar yi ci cant gii nga xam ne dañ koy cant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy yéene ju kawe kawe kawe kawe kawe kawe président Ablaye moom ñaanal na boppam wax dëgg yàlla la may wax rek la may wax rek nit ñaa ngi nit ñaa ngi ciy teg seen bët bis bi lu muy gën a jege rek nit ñi di di di di di gën a am di gën a am yaqiin ci li muy def mbir mi di gën a leer ci ñëpp waaw di ko ñaanal yàlla saa borom li nga xam ne nii moo nekk suñu xol ñun muy 2024 gi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal mu nekk la cinquième président de la république du Sénégal te am nañ ci yaakaar gu kawe kawe kawe kawe yonent bi moom képp ku ko jëfal dana la fay te liñ koy ñaan mu fay ñu ko mooy mu def président Abdoulaye Sylla le cinquième président de la république du Sénégal te am nañ ci yaakaar gu kawe kawe kawe kawe lii nga xam ne nii jaayante bii nga xam ne mi ngi koy def fépp fi nga xam ne nii tantal nañ fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na gis nga ne loolu yàlla na daje nga ne loolu 2024. mu am ndam lu sedd guy guy guy te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax yàlla dina ko def ci kattanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bakki mawludu nabi ku ne Touba wax gàmmu suñ Touba ku nekk xam na ni li mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ko ko ko tagg ba tax na fii président Abdoulaye Sylla wéyal na fi liggéey bi amal fi liggéey bu am solo liñ fi war a am yéene yi joxe ci ay xéewal muy ay nag dina toll ci téeméeri nag téeméeri nag yooyu ñu mi ngi fii ñu denc ci ci ci angaar yi bu soobee yàlla tàmbali nañ di ci di ci di séddale fii ak suba bu soobee yàlla dina daj ci kër kër kër kër sëriñ yi nekk Tuubaa gépp ak mboolem fépp fu ñuy tant tantal bi sallallahu alayhi wa ci daayira ci kuréel yi ci ci meeri mbootaay yi fépp ci biir Tuubaa képp ku ko yittewoo rek. ci njàppanalu président Abdoulaye ay danañ la ci jox bu soobee yàlla ñi ngi tàmbali liggéey bi ci suba ak léegi ñi ngi yóbbu nag yi di yóbbu nag yi ak giléem yi bu soobee yàlla muy cant gu kawe kawe kawe kawe man de ba ma juddoo ba léegi musumaa gis xéwal yi ku ko jox xéwal yi kawe gi mu kawe yàlla na dara yërmande yàlla suñu borom ci xéwal yi yàlla suñu borom defal ko li may ñaan rek yàlla suñu borom defal ko ndaw ndam lu kawe njortam en 2024 incha allah te am nañ ci yaakaar bu kawe kawe kawe kawe. kuy wax. préférence nationale boobu muy wax muy bay ci sawewu tànk ku xam li mu nag bii mu jënd li toll ci euh, junniy nag lépp junniy nag nga jënd ko ngir guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëndee ko ci ay sénégalais yuy daan seen doole loolu kay firndeel na préférence nationale bi xanaa nag wax ji nag foofu nag war na faa ferankulaay ko kay ku la naa ku ku la ku la jox añ jox la reer jox la ndékki bu ne laa di nga reer moom war nga saxal war naa dal loolu mooy firndeel préférence nationale bi muy woote. bay ci sa wewu tànk maanaam ñun ñii suñu entrepreneur local yii ñëpp gis nañ ci seen bopp ci opération Mawlud bii mu def président si la def muy lu am solo jëndewut jënde mënoon nay dàqi nag di ko dàqi ca foo xam ne nii bokkut ci Sénégal suñu territoire mais sénégalais yii la jox ay xéewal ñu jaay ko ay nag loolu nag mooy bay ci sa wewu tànk bi muy woote mooy c'est c'est cinquante pour cent de préférence nationale bii nga xam ne nii moom lañ teg ci bopp mu mu jiite ko di ci amal liggéey bu am solo ñuy ñaan yàlla liggéey boobu noonu 2024 ñu am ci lu kawe suñ jort yàlla suñ borom defal ko tawféex gu kawe njortam muy mu nekk le cinquième président de la république am nañ ci yaakaar te yàlla suñ borom dina ko def.